salaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan salaamaaleykum adina di am mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen tay nak yéen ci sen euh, émission voilà ngeen ànd seeg Tima la noiseur tey nag ñu ñëwoon seeti suñu papa boo xamante ne suñu référence la koo xamante ne mën naa ne cadre la mën naa ne aussi tamit monument la ndax li mu def si milieu théâtral euh, gis nañ ni que ñu bëri tamit defuñ ko si di amoon nak euh, vraiment contentement di ko seeti fii si këram di def ak moom émission mu ngi tudd nag tonton Lamine papa Lamine dañ koy jox micro bi rek mu daal di nuyoo ak mbokki interne ñi papa Lamine nuyu nañ la. ma leen di faye yéen euh, vraiment ñi ma seet si tey.

nek nak ko xamni ni wax deug fa yalla ba may dor metti won na trop mm-hmm. mais nak euh, bo amé pastéef ak dogute mm-hmm. ànd ak euh, lu wor ci ngëm mm-hmm. euh, da dem ba jeex la dal dem kat ba jeex bobu nak ci la fa jóge dem jang affaire yi man mën na né autodidacte la parce que ma ci duggee mu neex ma trop ma xam ni lii mën na yokk nit dama dem ko wut samay livre jëndal ko sama bopp ñëw di jàng njàng boobu metti na trop parce que dama nekkoon ci benn groupe boo xam ni la majeure partie école des arts lu ñu jóge woon donc ñoom foofu art dramatique lañ doon jàng man art dramatique boobu ñom amna na ma ci jox parce que jëlina ci ñom lu bare bare mhm. ma nekk fak ñom wax deug fa yalla ci jàmm ak ñuy joxante nak dans le sens du partage comme ni ko di waxe mhm. tubaab bi euh, ñu nekk ñu yewen ñom it euh, seetuñ une euh, naa ou mënuma mhm. mais dañ dan jàppalante lolu daf ma yok ci sama jang parce que bima koy def génn naa école bi ba xalaat dem université mais mujjewuma dem parce que ba ma ci duggee ba ñam ko xam li ma mën a indil à travers ces bouquins xam aussi tamit ñi ma toogal te nekk ak ñoom lañ daan waxtaan bu bëree bari dama ko weccoo ak njàng moomu te tey regretté wu ma ko parce que tout simplement lépp lu ma doon wut ci njàng bi gis naa ko ci biir bu ñu demee ba ci kanam dinaa la expliquer lu tax dëgg kon na ko def 50 ans de carrière ni na plus de cinquante ans plus de 50 ans jàng na bu baax métier bi naka ngi gisee formation demb ak tay ndax jeunesse su léegi si bii dañuy gis nga daal di rafet rek ñu daal def casting ñu jël la duñ jang aussi tamit formation duñ jang théâtre lolu njuumte la ci ñom mhm. man leen di ñaan rek. théâtre bi bo ci duggé dafa laaj d'abord wattaay wattaay boobu nekkul lu muy nga jàng ba xaw xaw am niveau. Mhm. parce que lu tax ma wax leen nga jàng ba war a am niveau loolu laa lay wax ne le théâtre bi metti na yombul. gis nga lépp loo xam ne ñoo ngi koy jàngale. ba à mhm. l'université dafay mel ni yaa ngi koy gis ci biir théâtre bi. Mhm. ci naka bu la joxee texte da ngay dem école xam nga ñu jox la texte. nga war a def étude de texte. Il y a une conjugaison bi orthographe bi grammaire ak euh, ak vocabulaire voilà donc vocabulaire mhm. euh, grammaire bi de lay maye euh, mhm. phrase bi wala d'ailleurs texte bi mhm. ainsi de suite quoi a un élément vocabulaire c'est la définition donc il y enrichissement un enrichissement.

parce que l'autre pense par les plastiques Me dit le ci benn rek euh, soo plastique plastique c'est le corps donc euh, le corps s'exprime donc euh, comment war nga ko xam da nga koy jàngale ci alors euh, à part boobu parole bi par exemple war nga liggéey se baat ba mu neex mhm. mélodie harmonie nga war ko am ci baat bi waaw yooyu yëpp daf ci bokk dafa mhm. noo doole ji mooy tonalité bi mhm te loolu dafa laaj ay yuuxu yooyu liggéey mhm. en crescendo ah, dégg nga maanaam nga yëkkati ci kaw ci suuf ba ci kaw wala nga commencé ci kaw ba ci suuf pour nooy nuancer texte yi daf lay jàppale ci loolu jàppale mhm. ci corde vocales yi mhm. pour nga liggéey ko ba mit ndax mu neex nangu c'est toute une musicalité gis nga musique li ñuy wax clé de solo yooyu yëpp tout ça tu retrouves ça dans le théâtre mais doo ko jàngee musicalement donc koy jang euh, littéralement parlant alors légui musicalité bi yaa ngi ko liggéey à partir maintenant de ce que je viens de te citer mm-hmm. la règle des trois P pensée parole et plastique mm-hmm. donc bo ci jël rek metna émission ci bopam pour gattal ci wax mm-hmm. euh, dafa ëmb dafa ëmb xam-xamu théâtre loolu nak buñ la ci wajalul di nga dem ba mu jegi nga tële soy wax sa baat du am tonalité boobu. bu fekkee ni yaa ngi ci public war a wax aussi tamit euh, sa wax jooju du am nu koy déggee mu neex leen. Mhm. boobu boo gisee harmonie ak mélodie loolu lay kii neex baat la maanaam baat dañ koy nàmm alors yooyu jaar naa ci. Mhm. Euh, pare ba pare tamit groupe bi ni ngeen di nekkee toog homogénéité bi pour nga xam ni yaa ngi ci biir mbooloo da ngeen di xejoo mhm. xejalante. xajal bi xajalante bi li muy liggéey mooy boo amee ay partenaires sur scène du yow rek yaay wax am na ñuy wax aussi tamit da nga leen di bàyyi ñu wax mm-hmm. mais fan ngay noppee ak fan ngay dooree wax ko loolu yëpp daf ci am importance te loolu waaw mm-hmm. dañ koy jàng parce que am na ñuy wax na il ne faut pas monopoliser la parole exactly mm-hmm. da ngay waxe waxe wax ba saa nga noppi mais ca na nga ko waxee kooku war na la tontu soo ko dégluwul nooy xamee te dafa war a am coordination seen diggante. Mhm. maanaam moom mu ndu mer mer nga war a nekk ku giif ku dal. Mhm. yu war nga teel a giif dal parce que danga koy waajal ci sa bopp ci xel la nekk. Mhm. li mu lay wax pensée. mooy loolu ah, donc ci xel la nekk nga koy liggéey. mu wàcc ba sooy dal gunge ko ci biir waxam. dal boobu am solo ak euh, moom ni mu meree yoo ko di wax ca kaw. da nga mu indi mu ci moom ab dal.

fekk na na mu doon waxee na mu doon doxee doon la joor mais da ngay jéem pour dab au moins euh, ñu xool ci yow ni euh, ku ku dal nga mm-hmm. euh, te li ngay def xam nga ko parce que signe d'intelligence la boo xam ne ni dafay tax rek ñu daal approuver ci li ngay def boo xam ni bu teeyul mm-hmm. dafay dafay jaxasoo ba indil la nervosité boo xam ni ñi lay seetaan dañ koy remarqué daal ne kii de nekkul motax yenn say li nga gis wala nga wax la nga tontu eh, ak wax théâtre mais si ñu ci ay téléfilm yi comme par exemple def à la télévision. bu ba bañ koy def à la télévision. Mm-hmm. art dramatique dañ koy dindi mm-hmm. ne ci boko ko daf lay dimbali ci nga ni ngay jouer film nga xam déjà rôle bi nokoy aborder abordé lolou dafa am importance mais bu faites ni jiituloo lolou mën nga ci teub rek jox ci de préférence les cinéastes, di def la plupart du temps bu ñu jël def casting mhm. bëgguñu la yow nga def théâtre ba paré bëgg def film ak ñom dañ lay ki verge nonu parce que euh, rôle film personnage la laajul muy force comme ci théâtre dafa laaj mu naturel dafa laaj dal bu baax a baax baax intelligence bi rek mo doy gunge ci wax jeeg ci jëf jeeg ci melokaan bi yépp mais do ñëw def ko parce que caméra day tourner en nombre de frames mhm. frames mo gëna a gaaw seconde donc no articuler ci geste bi rek mhm. da ngay gis mu mu accentuer ko légui buñ la xolé dañ naan kii daal dafa ëppal mhm. donc yooyu yep aussi

il s'est sacrifié pour la nation loolu tax ñu jox loolu. do nga lay tekki kon donc limu mu war def ci yow boko joté jotee. Mm-hmm. nga gëna gor gor lu parce que dañ lay ñaax. mais du ne ni dafa am grade bo xamni ne tu supérieur par rapport aux autres mm-hmm. euh, wala ya gën def mëna théâtre wala ya mm-hmm. gën mëna jouer film ay affaire yu mel non xam nga ñoñu dañuy wut buzz. mais man mom yalla na ma yalla musal ci buzz. xam nga lutax

mbégte rek te lépp yu dëgg boo yeggee mag di nga ko xam bu baax a baax parce que am na ay histoire ñun yu ñu xamul man dama ragal ni dañu war a tibbee foofu yokkal ko jeunesse bi pour ñu ànd ak yar ak tekk ak tey ak dal réew mi suñu réewa luñ ci def bu jubalee da yàqu mm-hmm. kon donc au lieu ñu yàq ko mu mel ni gaal gi ñu dugg ñun ñëpp ñu bokk ko. Mm. nga nekk di tàngaase gaal bi tàngaase ko boo moytuwul dinañ ñun ñëpp ay suux. du dëgg mm-hmm. donc ñu ànd ak dal ak tekk tey. Mm-hmm. te jublu ci suñu lislaam day yokk si diine dem màkk boobu. Mm-hmm. ndax euh, man ba ma fa jógee ba léegi réalité bi may dund. ci sama xol. jaral na ma chaque suba. ma yeewu teel ay trois heures et quelques laay yeewu. di wér ba fajar ma julli sama fajar di may wér yëpp nag tru yàlla yi moo ci ëpp. ñu gis donc yaa ngi wax ci affaire buzz ñu bëggoon laa laaj tamit star ak buzz nan nga ko gisee fi ñu toll nii ci Sénégal. xanaa dëgg boo wax star ak vedette. ah ah waaw ak vedette. waaw moom buzz moom buzz la tudd. buzz la tudd waaw. Mhm. mais star. Mhm. man définition bi ma ci am am moo di les stars ont trop de talent man soo ma ni star nga. ma ni alhamdulilah rabil alamin la ah jubbantil loolu star mu ah, ne ko j'ai pas trop de tard nasaraan bi bu lo djubé ba ni tu as trop de tard. c'est que tu es nul. nul et non avenu. lol nak ni ko xamul buñ doon gunge sen bop ci li ma wax. danañ moytu star. bu nee ma vedette. ma ni non vedette ñu ne ma lu may les les vedettes au trop de dette dégg nga parce pourquoi parce que la dette c'est pas de l'argent tout simplement c'est dans les relations humaines li ma lay jox ci cër ak lépp lépp lu ma la mën ci jox war nga ma ko mën a delloo bu ko defee suñ dund neex du dëgg buñ doon doon leen delloonte ay cër mm-hmm. ah, kenn duñu dàq dund ñun ci dëgg-dëgg Euh, parce que dund nit loolu la ñu laajante ku ci nekk gëm sa bopp ci Pastef ak dogute mhm. waaye terwul it nga jox cër nit parce que yàlla dafa bëgg nga jox cër nit euh, problème mu cër boobu nag mi ngi nekk ci ne moom moo sàkk nit te mu gënal ko loo mënti gis ci àddina mhm. donc am na leneen lu muy war a lu mooy ay vedette dégg parce que vedette moom boo ci nekkee je crois que da ngay dem ba mu njëkk yàq sax euh, définition bi. Mm-hmm. donc les vedettes ont trop de dettes pour man. d'accord dañoo. kon dañ leen daal di bàyyi rek nga xool témoignage bi. d'accord. kon wante muy ñëw su ñëwee Kaolack nag heure bu ñëwaan Kaolack après day ñëw suma kër foofu lay fanaan euh, même su ànd ak nit sax dam naan ah, man moom Kaolack fii dama fi am jaati gi damay dem kër docteur Diop foofu lay foofu lay fanaan donc mu ñëw si kër gi xam nga ñu ko defal ko xewal comme Ndiaye sant hmm? voilà donc mu nekk ni ku baax waaw euh, am colère waaw baax baax su ma mënul utiliser beneen mot bu mooy baax dama koy utiliser mu nekk nag si art bi di def théâtre yàgg si lool parce que dama koy déglu dañuy waxtaan bu koy def je pense ay 1969 1969 70 yooyu la commencé def théâtre bi euh, ay waajuróom doon waajur yu baax papaam nekkoon agent com agent combattant hein, je pense loolu nañ koy waxee euh, def. Euh, euh, guerre mondiale 14 18 Bon, bu si je me rappelle bien en 1967 si je ne me trompe pas donc je suis aussi euh, artiste qui xam artiste bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xam la man dama koy ooyee le messie messie du théâtre parce que yàlla dafa wàcce ay kangam si spécialité yu nekk mais mbirum théâtre moom tonton Lamine mooy mooy mooy messi bi loolu moom nañ ko nangu lu waral loolu nag c'est parce que daf ko jàng la si méthode bu ñu koy defee le contenu euh, ba mu ne ma à l'époque ñu ngi amoon benn bouquin boo xam ne moom la si doon jàng ñu koy woowee note sur la mise en scène livre boobu danga jàng na si lu bari si wàllu théâtre donc aar euh, la boo xam ne daf ko bëggoon lu mu bëggoon la moo tax loolu nag moo ko jural li mu am tey xam nga nga nekk si théâtre bañ jox la ordre national du lion ah loolu vraiment franchement parler man de si ñuy def théâtre gisuguma kuñ ko ndombo tànk buñ ko defal moom te gis naa ko jour bu mu koy jëli sax ñu ko koy jox mu ngi ko fekkoon màkk euh, dem ziare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que turandoom la Mouhamadou Lamine la tudd donc euh, Muhammadu jara sax la tuddu ñu koy ooyee Lamine Ndiaye mais turi prophète bi sallallahu alayhi wa sallam paix et salut lui moom la moom la yor mu roy si moom nag ay jikko yu bari jikko yu bari dinaa si ñëw après si loolu mu mu mu royee ko donc euh, après man may dem man def ma demee Dakar nag jaar dama daan dem seen kër mu présenté ma aawam boobu amagul ñaareel bon vraiment ñu may yaatal si kër gi. Je jiyee ko et demaat mu suis deuxième femme deuxième femme aussi peu suma xarit ñuy ak ak jabaram rek jour beau donc loolu mu Je lu réussi man parce que bëgg invité si fort yoy moment fort donc ñaareel bi doon tamit bu baax top top bëgg ko am yu ni vraiment ko donc lolu aussi dina ko dina ko si wax ci témoignage bi parce que dafa bëgg njaboot dafa bëgg njaboot amon na benn doomam benn doomam bo xam ne doomam bu jigéen ndeysaan dafa génn aduna yal nako yalla yàlla yërëm te xari ko àjjana eh, jamono yu nekké nekkee feebar soo gisaan Lamine sax da ngay sentir ni ki ku bëgg doom la dafa ma dan oo téléphone di ma laaj docteur ah yobu naa ko fii lii ñu bindal ñu wara a jël ñu wara def ni di ma laaj conseil di ma laaj conseil ba yàlla def lu mu def san yàlla def mu génn àdduna mu doonoon bu ko naqari waaw def na si nag lu lu nekk fekkoon faj rek mooy wër garab ak yóbbu hôpital ni kon xale boobu dina wër waaw donc ñu ngi koy ñu koy masawut ko ñaan yàlla yàlla xay xale boobu àjjana donc mu doon ku ma bëggoon ku ma fonk parce que koo fonk doo ko laaj yu mel noonu ñu génne aduna nag eh? man déplacer wu na ak sama famille ak sama jabar dem dem kërëm après jaale jikko donc tonton Lamine dafa nek ko xamné mag la mais dafa fonk xalé ba paré fonk diine ñu mi nek sama kër yëpp su ñëwee Kaolack fajar ñu ngi téye kurusam amna ay mbóot ci diiné gi nak fonk julit fonk wirra yalla may ko nag am lu ko yalla may ay mbot yu ko may te mu tabe ci lool nak diko joxe parce que dafa am sens de partage loolu man tamit xamna ko ci mom donc lu tax ma gën ko japp moy ku fonk nit la fonk nit fonk do anam tonton Lamine du bëggu rambaj du jëw nit bëggul kenn mer te loolu sax mën nañu wax ne défaut la si moom bëggul kenn mer te loo ko loo ko sant si wàllu aar quel que soit le sujet ak thème bi na nekk aar rek moom pare na pour pour engagé wu si loolu loolu rek défaut la parce que mu ko indiloon rôle boobu mu joué woon sax muy rôle yi góor jigéen boobu nga xam ne amoon na si succès bu baax mais aussi euh, risque la woon ci jamono bobu mu koy joué waaw te man sax dama ko tuddee góor jigéen mais dama ko tuddee góori mbotay parce que à l'époque mo bobu la ñun lool mo nekkoon témoignage bi nga xamantani docteur mom moko ko ci yow mhm. léegi Papa Lamine euh ñi ngi gis euh, bon ya ngi xol vidéo bi sa xol moo fess wala lan moo lan mo xew non dafa nekk koo xam ne nii mhm. je le remercie beaucoup li mu wax yëpp mu ne ci man. Mhm. ci moom la nekk. Mhm. Euh, dafa naan lii gën a baax ci àdduna. Mhm. yàlla bu ko defee ci nit. da koy cëral ci loolu. te li mooy wax nii. ne ku bëgg njaboot la billaahi moom moom a gën a bëgg njaboot. dëgg la. nekk na koo xam ne nii bu ma feebaree man. ba ci sama njaboot képp

damay seet mooy digganteem ak yàlla d'abord. parce que li may wax ci man mm-hmm. gëm yàlla. Mm-hmm. ci moom la ëppee. Mm-hmm. lan nga lan moo la touché ba nga xool vidéo bi say bët taa. waaw parce que xam nga boo jàppee nit di ko seedeel loo xam ne nii. gënu la gënoo ko. ku baax nga ku yiw nga. loolu moo taaral sama bët. ba pare li muy wax ni. sama doom bi gaañu.

bu ko defee day ñëw romb romblu pour mën ma séen ko mhm. ndax xam ne ni simila ak sala ma teral leen mhm. te danaa ko yónni boisson mhm. mu lay jaar romb dem ba ci parenteer ba du def dara ci biir nañ bëri mu dellu soit jaaraat noonu bu ko defee man ma woo ko ko demal ma ci bitig bi nga jël fa nangam ak nangam ak nangam te noonu la koy defee mu ñëw mu toppatoo gan ñi muy sa doom boobu tama wàññeeku kon ñu koy ñaan yàlla yàlla xaree ko àjjana waaw amin amin amin mm. amin yokk ko barke ci mm. biir suuf amin euh, daf ñu jiitu ji rek mm-hmm. ndax ñun fala budd fa ñuy mujjee ji mm-hmm. waaye boo ca xamee loolu mm-hmm. da nga koy ñaanal yàlla euh, la mu faf nekkee yàlla ko gën fuuf li mu bàyyi fii ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko yàlla ko dolli ko sutura ci biir suuf Firdaws euh, gën ci moom. ci biir loolu ñu ngi ñu ngi gisoon ñi nga xamante ne ay artistes lañ ñu bokk ak yow carrière. Mm-hmm. tey jii yàlla def ni nekkatuñ fi. Mm-hmm. ñoo génn àdduna ñan ñoo ci nekkoon say xarit te ñu marqué la ñoo xamante ne tey boo leen boo toogee di def théâtre sax yenn action yi tey. Mm-hmm. daf leen daf lay daf leen di fàttali da ngay toog di xalaat ñenn ñi nga xamante ne. kooku moom kenn lu si muy Abou Camara. boot nañu nekk suñu kilifa te xamuñu kilifa boobu ci moom ndax dafa yaatu woon wérdi yi may def nii ci moom laa ko jëlee maanaam da daan wér wér abu ah, nekkoon ni nit koo xam ne xam ne euh, fépp foo xam ne nii am na armeer ci biir senegal xam na ko ndax bu ñu daan tukk di def tournée dañu jékki-jékki rek gis ko mu kii loxo yi tàllal ko di ëf ndax xam nga ñun noonu lañuy ñuy ñaanale néew. Mhm. ñu soog a xam ni foofu euh, armeel la ñu ñu ñaan ni moom fu waxtu musa na jot fekk ñu ci biir salle bi Robert Fontaine ñuy ñu toog di wax wala ñuy répété. Mhm. mu ne eh, arrêté leen ñu jox yàlla cëram bi mu bi moom ci ñun. ñu daal di arrêté ci ñoo xam sax di julli di julli ay mais ni leen abu ci image bi mu tax image am solo ndax image dina nit ba muy parce que loolu aussi mi ngi jëm définition cinéma parce que la génétique la génétique c'est le sentiment et l'émotion donc bu fekkee ne yaa ngi nekk ci sentiment ay émotion ñun fa la ñuy jaar pour soppi ji ko doomu aadama mm-hmm. donc nu mu mënti mel boo jaaree ci génétique maanaam le sentiment et l' émotion mm-hmm. émotion bi mooy façade bi lii nga gis nii suma kanam mm-hmm. maa ngi ci ay génne rangoñ parce que euh, loolu mooy réalité bi ma am ci sama sentiment bi ma yëg ci fi mu nekk nii donc loolu aussi tamit dafa am solo waxuñu artiste mu joué jooy daal di mën jooy non mhm. kooku moom ñu laaj ma ko bañ ma ko kii sax man mën naa ko joxe mhm. saa su ne mais li ngay dund bu dee dëgg ci yow sentiment boobu ngay wone ci sa kanam mhm. alors moo tax la ñu gën a bëgg ci cinéma en fait ci film yi ou téléfilm yi loolu la mais bu dee jouer théâtre rek geste bi la ñu gën a kii mais accompagner léegi système théâtre sax bi ngi def ndànk ndànk di yot rejoindre mm-hmm. parce que ce jeu là naturel moom la ñu gën a bëgg ci théâtre bi aussi tamit nga di ko def boo boolee ñaar ñi nag da lay dimbali dans le jeu artistique ba pare mu yóbbu la nga gën a am martamba ci rôle yi nga xam ni moom ngay def parce que rôle dañ koy étudier euh, texte théâtre dañ koy jàng par cœur mm-hmm donc du texte théâtre mon nek obligatoirement texte cinéma da ngay gis ku bind scénario bu film bu ñëwee def ci texte texte boobu on n'est pas obligé en tant qu'acteur de le dire mais ñu toog ci conduite texte Le texte bi texte bi mën nga ko mu beaucoup de définitions. ñu ci bari mën a dolli seen xam-xam ci biir texte mais liñ ñu leen c'est le jeu artistique parce que caméra bi déjà image buy durer 30 secondes rek ci télévision day soft sauf nit ñi. bu àndul ak ki n'exprime absolument rien da ngay gis sauf exemple le mu la jëlal modi so woné ben garab nga dëkk ci woné garab garab di ko est di ko woné di ko di ko téléspectateurs yi dañ waaw image bi rek la am. Mm-hmm. wala dindi image bi te change ko ñom sax ñoy wax ci seen bop mm-hmm. déjà donc limu lay wax solo. Euh, euh, alors les jeunes qui sont venus ils sont courageux. Mhm. parce que nag texte moom aussi ñoom dinañ ko jàng bon maîtriser ko. Mhm. maîtriser cela ne veut pas dire nga par cœur am na dit que nous dañu ci mémoriser au lieu euh, de de de de de maîtriser autrement nga jàng ko par cœur mhm. euh, mën nga ko mémoriser jouer texte en te rappelant parce que film loolu lay ça ne dépasse pas quatre phrases nga mémoriser ko ñëw jouer quatre phrases mais ce qui est important dans le jeu tu n'as plus besoin d'un texte assez long un texte de cinéma n'est pas long c'est pas un euh, verset qui est ne moom c'est mm-hmm. euh, mais très significatif de par le jeu c'est le jeu qui compte au mm-hmm. cinéma c'est pas le verbiage que le théâtre a moi compter d'ailleurs sax texte euh, théâtre da ngay gis bu ñu ko reprendre di ko obligatoirement euh, dañ foog ñu obligatoirement ñu bind ko mu ni monter xam nañ luy transfert euh, incrustation ak image yooyu nga def ko da nga mu la même chose que li nga au théâtre donc yooyu de dafa am solo te boo dee artiste da nga war sop sopp xam yooyu nekk ci liggéey bi war n'a dégg ba so génnee sax parce que mën na la jangal nga nek réalisateur mën nañ la jangal suba nga mën di def direction d'acteur mën nañ la jangal nga xam mise en scène et mise en scène nekul bo nekkee plateau mhm. plateau ken du wax mise en scène dégg donc mise en place la wax on fait la mise en place pour que technicien yi xam ku ci nekk sa déplacement kagn la fooy normalement li ngay wax yoyu kiko, ñu def une petite répétition d'aller qui ñom ñu xam ko technicien. bu ko defee nga dan ni ki bon valeur de plan tel euh, le jeu est très dramatique donc je voudrais que vraiment boy def plan na serré mhm. mu xam plan yi muy def mu serré mu génne aspect dramatique bo parce que façade bi lay wuti ji donc il fait un des plans de coupe yo xam ni ñooy rapprocher. a rapproché mhm. da pour ñu xam ki li muy dund moy lan manam l'émotion qu'il a sur le visage bokul ak bu fekkene ne def plan d'ensemble nga xamni plan d'ensemble bi situation la rek la le plan moyen yooyu yëpp mën na joxe situation bi manam booy def lecture cinématographique il faut ki yore caméra bi ak ki joué yep buñ ko jangé xam ko mm-hmm. film bu euh, al fala budd tu as 50% euh, que mu réussir tonton Lamine ñu bëggoon xam lan mo la le neex ci théâtre waaw li ma gën a neex ci théâtre moo di rôle boo xam ne nii dama def c'était très difficile mhm. dama ci jóge sax ci rôle boobu ma euh, daanu grippe mhm. pourquoi pièce bi Marouba Fall moo ko bind mhm. on en vient maintenant au théâtre euh, mu indi ko ñu war ko def distribution nous avons fait la distribution, nous avons fait le rôle de Satan. Donc, nous avons fait le Satan, le Satan est là. Nous avons fait le Satan, nous avons fait le Satan. Nous avons fait le Satan. Comme j'ai joué le rôle de Satan, nous avons fait le Satan. Donc, nous avons fait le Satan. Nous avons fait une échelle mécanique pour rôle de Satan ubbee day def 37 mètres de hauteur ñu daal ni ma dañ ma ci tak pour jëm di ma balancer ni ma melni ni kuy naaw. Mhm. donc biñ ma ci takkee ci ndigg alors ma daal euh, def ni samay loxo melni ku yoré laaf pour naaw. Mhm. suspension bo ma defoon. Mhm. ak ni ma sëggee woon nii ci kanam daf ma japp ba indi dog ma son nak fi mu nekk dog boo xam dafa ma japp ma daanu ci ce bureau rôle boobu neex na ma par exemple parce que expérience la ba pare risque mo ci nek man j'aime bien les risques risque boobu imaginez mo jógee à 37 sept mètres de hauteur def chute libre affaire bi dag boum bi dag boum biñ ma dag takke woon parce que warul feñ mhm. donc imaginez naka la sewee ak lu takk ma ko de nga ci ndig donc ma def suspension ñu yéeg ci ben étage bo xamni ne lañ ma jëlee ci kaw takal ma affaire bi ñu ne ma léegi ci jour war nag échelle bi di di ko euh, balancer ni nga xam day dem gauche droite alors man ma def suspension ci mbedd mi am ah. suma doon daanu tey ci tali bi wala ci kaw taax yi laay daanu rôle bobu metti na woon te wax deug fa yàlla. Mhm. Euh, sonnon na ci ba jëlee ci tawat donc loolu moo lay won ni la euh, neex na ma mais c'était difficile et mhm. j'aime bien euh, les risques comme ni wala la ko waxee. Mhm. deuxième rôle bi euh, bi mo joué gor jigéen bi la. parce que ñu ci bari ki wax na ko sax goru mbotay la woon. mais biñ ma ko waxee man dafa amone beneen rôle bu ma joxone rôle lu addu kalpe ñu ne ah, puisque boy boy Médina la ñom miin nen yooyu quoi. grave pour da na ko def yooyu parce que dañu déggoon ni dama mën su jouer benn rôle manam gorgu gu ëmb ba ma ci jógee mu indi benn tolé bu reuy ci dëkk bi. Mhm. ñu di ci wax di ci wax di ci wax même euh, au niveau de Sorano on en discutait entre nous artistes mais bon man ça ne me gêne pas. Mhm. ça ne me gêne pas parce que euh, réussir le rôle c'est-à-dire le rôle bi li pour nous nit mhm. importance que rôle bi jouer na ma ci mhm. du suis joué sama bopp jouer le rôle bi nga xam je parle d'incarnation, donc au théâtre, on incarne un rôle. Mhm. Mais au cinéma, on n'incarne pas un rôle. Tu fais le personnage, mhm. tu es le personnage. Donc euh, tu n'as pas besoin de trop de gestes, d'être sophistiqué pour être un personnage. Non, mhm. lolo au cinéma. Donc lolo aussi tamit mis j'aime le risque. Donc euh, risque Mais vraiment en toute sincérité, yooyu rôle li ma la ko waxee rek neex na ma trop quoi. Mm. neexuma parce que rôle bi nga xam ne bii. Mm. góor gu ëpp ak góor mm. góor jigéen kenn nanguwu ko. même si biir role boobu noonu ngay wax noonu. Mm-hmm. Euh, des fois nga joué rôle yu nga xamante ne société bi dañuy am beneen regard si yow. aussi tamit sa famille nan lañ jàngatee rôle boobu noonu. sama famille d'abord. Mm-hmm. dama leen di yar ci li may def. Mm-hmm. pour que ñu miin ko xam ko. yar leen ci metti na parce que am na ñu comprendre lu yoo dul wax nit ñi. ñoom nga koy waxanteel pour que yow bu ñu génnee ci mbedd bi wala ñu tasante kenn muy commenté mu mun ko yee ci li ma xam man ci rôle boobu ma def. alors man loolu laa leen di kii moo tax je fais la différence entre mbooloo bi rôle bi ak euh, sama famille. Mm-hmm. bëggoon nañoo xam mais nag euh, aussi tamit su ma fayee ko xaalis bi. Mhm. sama famille laa koy kii ñoom xam nañu suma liggéey la <laughs> <laughs> donc. loo ci ber ber ber sa xol de seet. bu ñu mhm. wàccee. bëggoon nañoo xam aussi tamit lan moo la ci gën a naqari. Euh, je préfère dire li ma gën a naqari ci àddina. Mhm. te ko sax euh, ba ma gën a mur laa ko dindi ci man parce que dafa indi woon benn fugg boo xam ni su ma néewaloon loolu rek na ma dépassé. Mhm. donc en 1957 le sama yaay gagné. il y ko yàlla yërëm. ñu daw dix ans après sama papa génn en 67. Mhm. figure-toi que mon père est né en 1888 donc mag la woon. qui mhm. lu nekk la daan def ci man daan sonn xaalisam du ko fekkee da du woon ma laaj dara. dama daan jeune su copain soxla dara mm. ci parce que ma ko jox ma man ma dem jox mm. quand il s'agit de nuit blanche par exemple nga xam ne jamono jooju dañ mm-hmm. ko def wala nga disque euh, lim ñu jaraloon Jean Jaurès foofu ci kaw mm-hmm. foofu lañ daan ay disque euh, quarante tours trente tours mais beaucoup de nag comme ñu bëggoon a fecc te man loolu euh, <laughs> euh, je peux dire que ni vraiment fecc moom lu mën la ci fecc cubain musique cubaine. Mhm. waaw sabar dinaa ko def mais sur scène. Mhm. bu ñu nekkee di jouer spectacle yooyu mu laaj loolu. Mhm. parce que joué woon nañ fi Jimbori. Euh, avec Alaaji Mor vraiment mu nekk moom it artiste bu mag. Ladji Mor bi joué Makhoury Gueye chauffeur de taxi donc moom ñu joué document sur scène dem ak euh, pièce boobu ñu joué Jimbori mhm. ba Gambie mais toj foofu ndax Jimbori boobu temps succès bu rëy la Jimbori amoon mais que ci gënoon am taxi euh, succès mhm. moo doon euh, xale bi ñuy wax Cheikh maanaam Hadi Sow moo joué rôle yaay ji mhm. xale bu ndaw bi tudd Cheikh kooku sama doom moo njëkk a joué bi mu nekkee lii sama doom bi ma tuddee Abou Camara diine li ko tax a jóg du dara lu mooy doomu aadama soppi ji ko doomu aadama moo ko tax a jóg ñun mm. liggéey bi buñ ci nekkee ba léegi euh, te bàyyi aussi tamit gëm ko mm-hmm. di ci liggéey wax dëgg fa yàlla bëgg suñuy ndaw tamit euh, gunge ñu ci wala ñoomit it ñu liggéey ci euh, nañ ko wékk ci diine lislaam mhm. te mu santaane te bëgg ko mooy soppi jikko doomu aadama noo mën a traduire nag éducation boobu ci mhm. soppi jikko doomu aadama parce que looloo ko tax a jóg mën nga ci béy liggéey ji mhm. moo tax ma ne nit ñi nañ moytu di wax waxal artiste yi di jëw baaxul

j'aime la politique mais autrement pas ñu koy defee ci Sénégal. ŋàññante mm-hmm. xastante te waxante lu bon euh, dëkkal la foo xam ni dëkkoo fa wala gis la nga nekk koo xam ne nii am na lu la yàlla may mm-hmm. te ñu profité te ngir suñu dëkk déedéet dana la ñaawal simmi la complètement ba dootoo jar ci dara. Mm-hmm. Euh, loolu dafa jekkul rafetul. te ay nit lañu te ëllëg ñu ngi jëm ci suuf. bu ñu gasalee pax. lépp loo xam ni nekkoon nañ ko fii ci àddina dañ koy layoo foofu ci suuf nañu xalaat loolu te gunge suñuy wax ci wax wax ju rafet wax wax ju baax wax wax joo xam ni day jëriñ senegal ngir li mu nekkee rek doy na mu bëgg tubéy waxatuma la nag euh, Covid bi ñëw dugg ci kenn xam lu ëllëg. di mel wala lu muy indi ci ñun wala lu muy nuro rikk waay nañ ma dimbali rek di lay wa rasulihi wéy ci diine lislaam diine sallallahu alayhi wa eh, te ñu gën a yokk muñ geeg pastef bi ak dowute bi ak bëgg liggéey mm. nañu liggéey loolu la mbokki internet yi li lañ leen indiloon tay seen bir émission voilà di kontaan trop nak di remercier docteur job bi nga xamanteni mom moom defe ni émission bi bu amé ak bu nexé mom motax aussi tamit euh, di def mention spéciale sama tailleur Maguette Degen luma sol mom la tey baas ngeen may laaj yëpp si WhatsApp bi Maguette Degen mom mo koy ñew mention spéciale à toi Maguette merci beaucoup gërem na ñëpp di leen dox tik dalé ba benen yoon ak seen benen numéro voilà ngeen ànd ci ak merci Thank you.